ginnaaw lël bi ñu def lëlu ñaari fan ngir saytu benn liggéey bu ñu defoon ci topp ak natt téere yi nga xam ni moom ñoo nekk ci biir daara yi liggéey bi nag nekk na liggéey bu nga xam ni kuréel bu ñuy wax Confamen ak UNESCO ñoo ko doon doxal ci juróom benn réew ci biir Afrique ci réew yooyu mën nañ ci lim Sénégal mën nañ ci lim Burundi mën nañ ci lim Niger Togo Madagascar ak Benin ñaari fan yi nag liggéey bi ñu doxal ci biir Sénégal moom lañ doon weccante tasaare ak nit ñi fi teewoon liggéey bi nag nekk na ci téere yi nga xam ne ngir jàngale maanaam làkkum nasaraan ak euh, mbirum xayma ak mbirum jàngale xarala def nañ ko ci école primaire def nañ ko ciit ci école yu diggu dóomu yi noonu lañ koy waxee wante li ci doon saytu mooy yan pexe lañu mën a teg ngir gën a ñoŋal melokaanu téere yi ñu am ci loolu saytu nañu dëgëraay bi niñ ko defaree ndax comme que suñu dëkk yi barewuñu alal day baax téere bu ñu jox xale bi ndongo daara bi mu mën a yàgg ak moom saytu nañu loolu saytu nañu itam li nga xam ni maanaam dafa ànd ak li jàngale jàngalekat yi war a wéyal parce que téré yi kenn wul ni nek na jumtukaay yi nga xamni day ñongal njàng mi xool nañu itam pexé yi nga xamni ni yoon yi nga xamni ni jéego yi nga xamni mom lañu la ci biir téré yi ndax méngoo na ak li nga xamni ñun mom la suñu réew taamu loolu lañ doon def ci ñaari fan yi nag ñu doon woné li nga xamni lool la liggéey bi jur. Cet atelier est très pertinent dans la mesure où il entre dans une activité globale qui est l'activité d'évaluation indépendante de la qualité des manuels au programme, une activité qui fait partie du projet ressources éducatives et que nous mettons en partenariat avec la Confémen. L'atelier a consisté à restituer non seulement les résultats obtenus à travers l'activité d'évaluation de la qualité des manuels au Sénégal, de discuter de ces résultats et surtout des recommandations qui ont été émises par l'activité d'évaluation et de construire une feuille de route de mise en œuvre de ces recommandations en vue de renforcer la qualité des manuels qui sont au programme au Sénégal.